Mama Rasulatu Mama Rasulatu Dewasa Jambari bambal jambal Tak bikin kayana Sohna may halim wadah Wadi wali yudhubur Digiruhu aliyah Jawa Kayana Thank you. ci moom te teeru ko defal lu jiwul watal ko demoo doxaay bu ma suur soxna si Mbàkke xal bu fan lool yàlla wóorul mooy yàlla suñ Tuubaa gërëm lool yow soxna Muslim Mbàkke soxna Asu Mbàkke yàlla bu fan lool yàlla nga am yërëm leen yàq la soxna mooy mat di gërëm leen yow soxna maa suur mat def lu mat suur asu makke soxna asu makke ana soxtan soxna asu soxna asu makke ba ana soxtan soxna asu def leen nii ñu màggal ba def leen nii ñu màggal ba ana soxtan soxna asu I'm عَلَيْكُمْ yàlla dogal na teewal na état bi fii ci ñun seen bi alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi ñëw bu baax a baax a baax ñu ñaan yàlla dégg na bu ñëwee fekkaat bi ci jotaay bii yàlla yokk na wér yokk na teewal yokk na taw bi defal ko defal ko mag yi jamono yëpp defal ko sàmm musal yi wax dëgg yàlla àndoon yi àndoon taw ba tey jii fii may wax ak yow dégg nga waaye daanaka sotteeku sëñ Malick Diop mooy suñu kilifa ci suba ba léegi moo taxaw taxawaay ba nga xam ne dem rek moo ci def li yebal ñun ñi nga xam ne mag la jamono ji ma tànn nekkoon na mooy ñëwal boppam waaye nag kàddu seet yi mu ci yëkkati rek nga xam ne moom moo la ko bëgg ci turam lay waxee ñu ngi sant soxna si bu baax a baax a baax ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax taxawaay bi soxna taxawoon te taxawaay daara ja ak soppi boobu day yokk waaye daa ko déglu ci ginnaaw ndaxte nan la ko waxee daaw rek mu toll loxo mu ci daara yaakaar naa ko démb dañoo mucc alxuraan nag képp koo xam ne barab bu ñu nekk yaa ngi koy bàyyi xel soo ñàkk koo toll di xalaat loo loo wut ci dugal ci daara ja ah wax dëgg yàlla bu ñu wax ku baax ku baax ngi noonu ndax alxuraan moom. إنا أنزلناه في ليلة Lailatul Qadr khairun min alfi shahr tanazzalu al-malaikatu wa ar-ruh fiha bi ismi rabbihim li kulli amr salam hi aqamat al-fajr bi yadani fi al-qulna al-quran tawaj wa bi yalla jarra dabi sayyidi fa tawaj li yundi bi dawla la fa tawaj bu loolu bëri ñu ne di alquran ci guddi ba war a wàcc bu la bëri tamit ñu ne la malaayka yépp dañuy wàcc ci guddi ba ànd ak jibril ba fajar Bisa dëgg yàlla muy jëmmal guddi boobu war ngay dagg sa yitte kon sol ñàkk du ini waaw bu ñu ko toppee noonu jataay xataay bi tax waaye mën nañ cee gën a fóotal waaye li ñuy si te ma kii nag diggante nag doomu rek diggante nag dëkk nooyee diggante doomu waaye dara doo naa bala muy yëkkati nag soxna ak ay kàddoom soxna mos mi daf maa woo. yaakaar naa démb ba ñëwee ba tey ñu ngi waxtaan ci lu mu def ba andi daayira bi ak siyaare na ma nit way juróom daa xool ci moom. ak cëram itam foor ci moom mu boole yaay yépp nag mooy soxna may mooy waajuram sëñ Modou Fatou xaree ko jur yàlla séddoo ko soxna may moom sëñ Tuubaa mu mu mu xàmmee fi xame fi mane fi soxna may lépp lu mat a def ci nit ku yiw mu def ko ci moom ba agsi ci soxna Baali nee na soxna Baali teg ko foo xam ne wóor naa nag tegu fa soxna Asumi defal ko loo xam ne it xam naa ne defal ko soxna Asumi loolu ma mat ci seere ay yoon soxna may am ay yitte yu kaw ba moo tax soxna Baali seen xel seen xel xel jiwee ko wet soxna may bàyyi ay ak bëggam ñëw fekk soxla lañ ko ak bëggam loolu nit koo def deful kilifa doo ko def soxna Muslim wax ne soxna Aslam na nga xam ne day ndono lii lu xool ci moom la lu mu jàpp la lu sori lool ci ak xolam la ndax yaayam ja ndax nee na mënut a ci kër gi mukk te du am image boo xam ne day seen soxna may toog soxna may seen sëñ Tuubaa toog wala mu am image boo xam ne day xool soxna may toog soxna bari dendal moom image boobu da koy xool ba ci sa jëmm ji nee na image boobu nag la ñaan yàlla li fekk mu ngi dund image boobu dafa am nag cër ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Muraadi bi ko jur sëñ Abdoulaye ko jur sëñ Tuubaa ko jur loolu doy na sëkk ak jëmm am na kër sëñ Tuubaa ndax soxna may sëñ Modou Faye xëy na sëñ Massamba kon li muy séddoo ci sëñ Tuubaa rek nee na séddoo na ko ci waaye ginnaaw sëñ Tuubaa leen li ma amee ak bokk da ko maye ak taalibe ko maye ñu jaay seen bopp ñoom ñoo ko doon taalibe sëñ Tuubaa ñu liggéey sëñ Tuubaa nit nag sëñ Abdoulaye daana wax ne xaw ma li ma bokkoon nit li ma nit def rek laa nit ki mënuma koo bàyyi ndax li ma def mënuma koo bàyyi ndax li ma def mënuma koo bàyyi am ci mënuma koo bàyyi nee nag yéen seen diggante yéen ñaar nee na sëñ Tuubaa fi nekk kër gii nee na bu ma doon ñëw dama fi fekk nit ne dama fi fekk bâtiment bi soxna may nekkoon mu wóor ma ne sama pas-pas soxna may danaa ko am ndax maa ngi dugg ba wala bâtiment boo xam ne soxna may daan ko su te nee sa yitte ak sa jàpp ci ñoom ñu xamal ko seen bopp moo tax nee moo ànd ak njaboot bii tam li soxla dara way jël ak mbokk boppam moom soxla naa nga ma soxla soxna Ndeye Astu Mbacke ak soxna maam Xarit Mbacke mu Daaru Salaam ànd ak waa kër Serigne Soxaybu soxna si waa kër Serigne Cheikh Seydou waa kër Serigne Afe waa kër Serigne Abdou Jëm Bane Fari ak waa Daaru Rahman yëpp ak kilifa yi mu àndal ñu doon ay jëwriñ ñu daan jàppale soxna Ndeye nee na jëm jëmale njëriñ nee na fu mu gën rek nee na doon nga ñu gën fa ànd na li muy doon doon gone ak li muy am am ab cër ca Daaru Rahmaan am ko ca kër Sëñ Masamba nee na bii am ci kër Sëñ Tuba ñu tànnal ko Sëñ Tuba tànnal ko ko ndax lu la Sëñ Tuba tànnal daa gën nee na la fas yéene téye ko loo xam ne téye na ko nee na way joon waajaloon na këru Daaru Kañe bala danaa ko sañ waxtu way nga xam lay dem la ko fa ci am la xam ne kër boobee yàlla dig na woon wu doon fa kon bu pas-pas pas-pas bu bon pas-pas bu kawe la mais kon ñun lii la ma sant ba joxal danaa ko gën a sama soxna si na ngi ak ay ngi

mun ma waxoon ci ay kàddu wax rek ak kàddu yu tànn moo gën a bët ñoom fuuf waaye nag kenn ku ci nekk ak ko sant am taw bu ci dëgg nag maa ngi jégalu waaye daal ñaa ngi seeral na daal sant nañu njaboot gi ndax daal wóotu bëriwul soxna may ngir ñoom ndax lu mu dugg dugg la ak ñoom lu mu dox am na ko ñoom fu mu jëm ak ñoom fekk nañ ko jërëjëf. sëñ Fallou. tubaarkàlla dinaa ci sànni ñaari kàddu nag. ngir soxna may nana naloo nag moom te mu dem mm. te nag yoonu Serigne Touba njëmbatu seen Bamba dara du ko sampi day ubbi soxna mu si jëriñ sa seen Mor Faati Xali jur ko Cheikh Massamba jur ko am nga cër fi mm. waaye nag soxna seen Mor Abi bari jur seen Abi borom dër bi ko jur seen Bamba waaye kër gii soxna may fi la defoon lépp. waaw loolu de loolu de dëgg la loolu de dëgg pire la. ñu tuddee ko bàjjen bàjjen jëlee avec Serigne Touba ñibbi soxna may bàyyi kër gi. takkoog soxna bàyyi ànd ak moom booba soxna dem Dakar deux heures du matin trois heures du matin jëlee juge takkoog soxna bàyyi uti kër maa fekk. kii rek la xam. dëgg la soxna su nag ku soxna si jub mu ànd ak moom. Saala si di ko soxna May ak soxna Baali. Ah. soxna May noonu ci moom waaye bu soxna May ñibbi àjjana fekk soxna Baali. ak soxna May mu baax ma. tubaarkalla macha allah soxna su bàyyiwul njaboot gi. ànd ak moom ci ba mu joxoon soxna May. cër ba soxna May joxoon soxna su mu rappelé ko ak ñoom ak rek tam ji am ko wax ma maa ngi soxna Mbaye ju baax nii kon tubaarkàlla gàcce ngaaraama mu si nit ku am jom mu si nit ku gore la sa at bëriwul waaye doo xale moo juddoo ni nga juddoo nag yoroon na nga yoroon màgg ne nga màgg ba bari lu tuude waaw déedéet parce que ndey tegoon tànkam mu nga ca sa tànk parce que ndey jaaroon fa nga jaar dëgg la parce que ndey jëfee noonu noonu nga jëfee bàyyiwul sa yaay nag ak soo naas tu lan rek moo leen sàqale xam nga lan la ah. eh, lu mu dim dañu jërëjëf su may continuer soxna may sax loolu la jërëjëf jërëjëf. jërëjëf kon. rafet na. Sénégal yi soxna Mbaye ñu toog ci chaise bi. dama wéy woon bàyyi leen leen. waaw ku mu jàppoon jàpp nga ko yàlla may jàpp. bàyyi leen de. bu dee ci sëñ kaayam soxna si taxawu ko. bu dee ci xale yi seytaane rajiim. Mbacke yaaram yow kenn mënu laa fay. mbokki taalibe yi waa kër Cheikhul Khadim soxna Muslimat Mbàkke mi di doom Cheikh Mahmadul Habib ibnu Cheikh Abdoulahi Mbàkke ibnu Xayril Mustafa soxna Muslimat bintu Soxna Maymuna bintu Cheikh Mouhamad Pati Xëy Mbakke talibu umma ibnu sama Samba ci turam lay waxee ngir njàmbaas ci li Sëriñ Fàllu ndax xam naa ci lu bare bare ngir ay yëf waaye soxna Astu soxna si ne mi lay nuyu nuyu islam di nuyu mbooloo mépp ku ci nekk nga jox cëram ak wàccuwaay di ko yàlla jox ina dikk na ànd ak bokki boppam ànd ay taalibeem ànd ak ay soppeem ànd ak ay dëkkandoom ngir fàttali si kóllëre gi nga xam ne waajur wu tëdd moo ko amoon ak sa waajur wu tëdd wa muy ñaari soxna may yu tëdd yooyu baax lool nee na tànk yooyu moo ko yëkkati tey muy tànk rëy jéego yoo xam ne jéego ko mat la ndax jéego liggéey si Tuubaa Xaadimu Mustafaa te Sëriñ Tuubaa képp koo liggéeyal mu fay ndax ñu mu bor dafa am fay ndax Sëriñ Tuubaa nee wa kullu man xadamani aw saara wa najjihu waxfir lahu aw saara képp koo xam ne ma maa ngi ñaan nga jéggal ko ay bakkaaram te nangu soo ko te ku nga xam ne Sëñ Tuubaa ah, lépp lu ci xëy na moom suñu borom ba xanaa nangu na ko kon nag nee na loolu moo ko yëkkati ay dëkkandoom nag wax dëgg yàlla kenn di sax ndax suñ paree li ngay sant ñoom ñëpp wax dëgg yàlla am nañ ak moom te ñu ñu am rek waa jëm tedd wa di soxna may dëkk fii ziar ziar. di xam ne nag ne moom ak tànk rek moo ko nekk xëy na dëgg naam am na cër Sëñ Tuba ci ñaari wàllam yëpp waaye te boobu jaare yëpp jëmu ak taalibe bi fas yéene teg tànkam fa waa jëmu tedd wa tegoon di soxna may um suñu faat yi xëy na soxna mosu nag moom dëkk ak moom xam nañ ne xam nañ ko ay jikko tedd ay jikko sañ ay jikko yaaram ndax jàpp naa nit ki ñoo bokk benn dëkk bokk moom benn koñ seen kër yi mel ne di benn ba pare doo xam as def kon xam nañ ci ay jikko yu tedd waaye jikko yi waaye def mooy saa saa foo fekk ma ngay pas pas yi am lu bay kon nag as tool la wax dëgg yàlla ak yaaram la te it ku ëpp la nag te it wax ñu yor jeex kon nag nekkal lay kenn jëpp ko ñëpp ko bëgg ngir ak yaatoon ngir ak baaxam ngir ak oyofam kon moo tax mu ànd ak ñu ànd ak ñëpp ngir dëkk indi addiyaam ci dugub tedd bi nga xam ne suba la wax ni moo gën junni dugub te junni dugub boobu doon wax nag ah adalee dañoo ko yor juróom-ñetti at bu topp as kon nag loola nekkoon lu ndaw kon daal ah, soxna si ñu boobu ñu ngi sàkku sa ñaan waaye di fedd ni sa kulëre di jaar fa wajoo te doo daan jaar moom soxna may baati xel yal na ko buur yéege jafilal min na def bara صلى إله ربنا وسلم بنت يمن ak mbooloo yang ñuy yàgg taxawee liggéey bi ci barke sëñ Touba bu fekkee ne soxna gis ne daa bokk moom lépp seen bilaay yi ñoo doon sëñ Mor Ami sëñ Touba ñu ko sëñ Cheikh Diallo Fatma sëñ Mor Moussa bi ñoo sëñ Touba ñu ko bu bokk moom lépp soxna Moussa soxna May la sama waxoon ne bu ma dugg ci wér bu doon taay ba génn doy na leen. loola nee na mën nga ko wax sa toogaay bii nee na bu ngeen wér ngeen ñaari ñu rek ngay toog te wóor na ko ne sëñ Tuubaa rek a tax rek te lim am sëñ Tuubaa nga jaar kon nag nee na ñu ngi joxe ay cant bokk yi nga xam ne ñoo lay jàppale tàmbale ko soxna Tabara sa wajur soxna may mën a wéy di sarat ba ci sëñ Seexuna ñoom ak sëñ Abdoulaye bàyyi ci kenn waaye di sant seen maam ñu ko yokkal ak cant ci mboolem doomam yi njabootu sëñ Balla Fally Guèye njabootu sëñ Cheikh Seynabou Guèye ak mboolem ñu la àndal ñëpp ndax nee na xam na ne am na ñu la ciy jàppale di say bopp te sëñ Tuubaa tam di la jàppale waaye boo bokkee sëñ Tuubaa wala sëñ Tuubaa mu lay jàppale si jikko tax nee na jikko ji la yàlla jox nee na daa moom da cee amul lu muy xelal da cee amul dara lu muy xelal loolu si ñaanal la yàlla rek nga mucc ñaanal la yàlla yëpp dara ndax nee na noonu lañ ab sagama moom ndax sa way bu nekk indi woon ci kër gi te bu sañoon ku jàppee soxna yi doo yem ak ku fi jarul ba faww nee na doole kon lépp mu gis ci yow ci teraanga jàppal ne yéene na la loo doole ci su ne nañ jàpp ne defuñu ko ci dañ faa nekk yor fa ay kër yu jàpp ngeen ci ab sëriñ jàpp nga nit ci nit ku baax jàpp nga ci nit moom soxna May yi soxna su nee na moom moo bokk lépp yoroon la moom waaye ne daa mat soxla mu daa mat soxla mu si waay gënu kon ñoom ñu ngi ñaan ci barke sa waay gënu sa maam yu baaxee yaa ngi mbooleem njaboot yi si kenn bañ ci njub bu ko yàlla jiitalee aw doxinam njub ku topp ci ginnaaw aw doxinam njub soo doxinam njub rek la yàlla tàggatoo njaboot gi nee na sa liggéey bi sori na ci moom lool rek fii nga toog lay xool ñewanti na la lool waaye nag yàlla mi nga xam ne loolu jamono moo la fi andi ku fi dugg moo la fi jëlee yàlla sa yàlla tay jàmm yàlla loolu moom ànd ak wér barke soxna nañ ko jërëjëf dana xool seen bu yi président na bu ñaan زيارة آمين نعم لله تفصيل جنبك آمين آمين آمين آمين آمين